mbokki site internet àdduna bës TV dal leen ak jàmm Cheikh Bara Ndiaye dal dina amal ab sortie dal ci kaw ki nga xam ne moo di préfet bu Mbacké nee na nag seen meeting bi ñuy fas yéene amal le 24 février su ko annulé dootul annulé te mukk wala su ko invalidé dootul invalidé moom nag nee na loolu même su fekkee ab menace la ko jàppe na nekk menace waaye nag nee na saa su invalider li nga xam ne mooy seen meeting dootul invalider